Dakar dem dëkk di commencé am ay difficulté jël naa samay responsabilité jaar fi ma war a jaar réclamer lu ma war a réclamer mais lu nekk sama ressort def naa ko jëm naa wuti ay ressources c'est là il faut comprendre pourquoi ma jaay si suuf si trois terrains sur 74 000 mètres carrés j'ai vendu 7 mille donc c'est pas la mer à boire ba ma ko jaayee également vous le verrez dama expertiser affaire yi ñëw ma ne sama prix yi nii dama ko expertiser par un expert assermenté qui a prêté serment xool évaluer photo yëpp ñëw ne lan le prix gis ngeen ça c'est la superficie totale du terrain de de de Demdik 74 000 mètres carrés nga jaay 7 000 c'est pas la c'était juste pour régler des bouchons te loolu sur autorisation du conseil d'administration ñu ne le prix l'expert dit cinq cent mille francs le mètre carré bu nekkee deux mille mètres carrés ça fait un milliard ñu ne képp koo xam ne am nga xaalis set nga mën nga ñëwal ñun dañu soxla xaalis vous verrez que parmi ñi jënd comme ñëpp au même prix coow amoon na fi naan sur le prix man président Macky duma ko jaay un terrain son association nga appelle l'APR un terrain di brader na ma abal ay bët man man kenn du ma perturbé kenn mënu ma dugal loo si lu parce que lay dugal ba pare après ils te poursuivent j'ai refusé j'ai fait expertiser euh, journaux yaa ngi fi ah. quand on parlait de six cent millions machin la j'ai refusé ne bu ñu boo jëndul comme ñëpp du ma la ko jaay am na ñu ko ne dàq ko def fa keneen mu def ko nee na du ko def parce que xam na sama valeur bu voyez acte notarié am na ko doon wax ne y a pas fan la am les preuves sont là montrant clairement que le prix pour l'APR mu ngi nii et de un milliard boobu prix boobu nekkee un milliard l' de vente et là après acte de vente bi j'ai voulu vous mettre tout ceci pour que wax ji jeex parce que am na ñoo xam ne toujours qui sont à la traîne malheureusement mu kenn mënu leen ko reprocher da gis ñu taxaw di la naan way leeralal affaire u bi wax naa ci waxaat tey laa koy tëj tey laay mujj aussi wax ci nouveau DG bi parce que du ma moromam il ne m'arrive pas la cheville yàllaa ko def na terain bu jar un milliard ñu jox la chèque de banque mi ngi nii à dem dikk c'est écrit à l'ordre encaissé naa ko wala encaissé wu ma ko dama ko xotti sànni fële parce que fiction la banque bi nee na cachet à l'appui encaissé nañ ko pour dem dikk c'est entré dans son compte mi ngi nii coow jeex na deux mu des ñaata six cent millions mu des quatre cent APR signé avec le directeur financier ne jox nañu deuxième chèque de cent soixante dix millions auprès de la Société Générale chèque baa ngi nii et on voit très bien dafa xaw lëndam tuuti on voit très bien Alliance pour la République ñu fay cent soixante dix millions mu des ñaata deux cent vingt-deux millions et ce et ce chèque là il est encaissé au niveau de la Société Générale de Banque mi ngi nii cent soixante-dix-huit millions en mu des deux cent vingt-deux millions deux cent vingt-deux millions yi mi ngi nii décharge banque bi nee na dugal nañ ko ci compte dem dikk deux cent vingt deux millions et vous voyez dem dikk en haut ça fait un milliard ñun ñi dañu bëri caaxaan quoi te d'ailleurs ñu si doon foo tuuti rek gis ngeen fu mu mujjee nit mooy jóg jox la ay këyit yoo xam ne si foo bañ Moussa jóg bëgg a xeex na ko demal dugal fii nga dugg ci tu te rends compte que tu es dans l'erreur dama lay baal. Sénégal loolu tamit si pardon la bokk quand mon frère Diaz ma ne ko bàyyi bàyyi nga ok tu as compris que ni la dugal ci ay wax bàyyi na baal naa la c'est terminé ku mer bokkoo parce que tamit boo doon xeex pour quelqu'un ci permanence bi man mënoon naa bañ a parce que damay jaay sam jaay terrain bi rek def ko ci patrimoine dem dikk may gérer dem bi mënoon naa fayam sama yoon ci affaire permis de construire ki jënd mais gis ngeen may dem ci xeex di leeral pendant que maa ngi xeex donc pour pour le président de la république pour l'APR te kenn ci APR jógul ñëw di ma jàppale ci xeex bi ñoo bare ay cadre ñoo bare ay task force kenn ci ñoom jógul di gisu ko mu ñëw toog ak man ci plateau dinaan dafay jàppale Moussa Diop ci xeex bi ci permanence bi contre Diaz je me suis battu tout seul mais je suis un juriste mais yaa xayti mu laa na président bàyyi ba xeex bi jeex ki ngay jàppale na bàyyi ba xeex bi jeex bi ñu génnee décision génnee euh, jugement buy wane ni le prix est payé expertisé vente parfaite accord sur le prix et sur la chose en droit mais en pleine guerre contre Diaz mi ma te musuma ko saaga man dama saaga damay dóore en pleine guerre contre Diaz on me tire dans le dos nga xam ne moom lay xeexal ne ko fa ñu ko yëf yi ne baal naa la yow jaratoo ko je pense que ça a le mérite d'être clair dans la tête de tout le monde man ñàkkuma fayda